alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin allahumma akrimna bi nuuril fahmi waftax alayna bi maxrifatil ilmi wa saxxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xadaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa rabbal aalamin mbokk yi bàyyi xel ci seen rajo asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhaanahu wa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 di ko ñaan mu defal ñu suturas àdduna defal ñu suturas àllaaxira ñoo ngi nuyu soppee almisbaax yépp soppee almisbaax yi nekk ci biir réew mi ak soppee almisbaax yi nekk bitim réew di nuyu jàngkati alxuraan yi di nuyu jàngalekati alxuraan yi di nuyu imaam yi di nuyu sëriñ si di bég lool ci ni ngeen di ànde ak ñun jotaay bi di bég ci soññee yi di bég ci ñaan yi di bég ci wét ligi yal nañ ci bokk jariñu yal nañ ci daje ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala yàlla buñ ci woru yal nañu bokk ci ñi nga xam ne lu ñu fekk mu teew rek la ci gën a rafet lañuy tànn ndax loolu ci wérug xol la bokk ak wérug roo xol bu feebar ak bu feebar day yóbbu nit ci e, mu gis lu baax daf koy jafe ci mbir mu mën a doon waaye nag mbaax gu matale gu daj këpp borom bi subhaanahu wa taala rek moo ko moom ndax loolu mooy ak mat doomu aadama ay jëfam daa am ay mat-mat am ay manki-manki am yu rafet am yu ñaaw moo tax borom bi waxoon ne innal xasanaata yuzhibna sayyi'aat maanaam euh, yu rafet yi moo yóbbaale yu ñaaw yi ci waxin yal na suñuy rafet-rafet ëpp ñoo ngi nuyu bu baax soppee baax yi nga xam ne def nañ jotaay bi seen jotaayu wéttal waaye def ko seen jotaayu jëlee xam-xam léeg-léeg joxoñ buñ joxoñ rek buñ xëyee gis ne ñun ak ñoom ñoo ci war a ànd nekk yal nañu yàlla dimbali ba li ñuy waxtaane ñun tam mu dëppoo ak li nga xam ne moom lañuy jëfe ndax ñaar yooyu ñooy ànd mu door a am njariñ mag ñi daan nañ wax nit rek na ko mbaaxu téere nga yor ndax téere bi moo lay diggal sangu waaye moom bu sangoo yàqu du sangu wala ñu ne nit ki njariñul sondeel nga yor mooy dangay leeral ñi la wër waaye yaa ngi lakk sa bopp ku bëgg a mucc ci yooyu nag day bokk ci la ngay def mooy la yàlla waxoon yahood ya ci alxuraanul karim te wax ji ñeel képp koo xam ne nit nga mooy ata naa sa bil birri watan saw na anfusakum ndax dangeen di diggal nit ñi lu ba noppi fàtti seen bopp dangeen di diggal nit ñi lu baax ba noppi fàtte seen bopp wa antum loon kitaaba afalaata taaqiluun kon e, loolu lu mat a bàyyi xel la suñu bind bi ñu tegoon suñ baaraam ñu ngi doon waxtaane lenn ci àq yi nga xam ne moo dox ci suñu diggante ñun te ma waxoon la ne ëllëg yowmal xiyaam loolu daa bokk ci li ñu fay yàggal waaye li dox ci suñu diggante suñu borom subhaanahu wa taala moom ab jéggalekat la ab baalekat la ku ko jéggulu mu jéggal la ku sàkku ci moom mbaal borom bi subhaanahu wa taala baal la na ñu boole baal waaye yi dox ci suñu diggante ci ay àq loolu sew na lool te mat naa bàyyi xel sew na lool te mat naa bàyyi xel léegi amel nit àq yomb na lool ndax daanaka boo xëyee suba ba ngoon jot ci ni ñu mooñu yëf yi boo moytu lu lay yóbbu ci ngay tooñ sab nawle lay doon tooñ nit lay doon te doo ci bàyyi xel te doo ci bàyyi xel tooñ rek nit dana woo nit téléphone sax jaawale fekk nekku ne moom nga bëggoon a woo nga xulook moom bala ngaa coupé boo moytuwut ci dangaa jaawaleek ki nga doon woo du man boo moytul ngeen weccax ko ci kàddu yoo xamante ne kàddu yu ñagas la te moo ne jëru ko woon ndax loolu ay seconde rek la defe naa ñaar ña buñ muñalante woon rek jàmm am ay nit danañ xuloo ci bokk rek fu fuñ daje woon moo xam ca banque ba la moo xam ca fayukaayu barab yi ñuy lijjantee la wala ca hôpital ba ca rang la te yéen li leen boole ci bis bi ay minutes yu néew la ngeen tàqali ko mën naa am sax yaa kooku yomal xiyaam ngeen di gisee jiwaat bu ngeen bokkee dugg aljanna yàlla nañ fa daje waaye muñalante googu tàmbulee ñàkk ci suñu diggante daa mel ne euh, àgg na foo xamante ne mat naa waxtaane léegi yu baree baree baree bari mënatuñ koo muñalante mënatuñ koo muñalante am niveau de dépassement ba mën a tëb yenn yi jafe na lool nit ku nangu euh, dara wàcc ci kaw mu muñ ko waaye doo muñ dara maanaam sa dàll wi sax bu ko nit fëlee booy fayu day jéggi dayoo da ngay mel ni kuy bëgg a takkub takkub xare boo paree réccu ko te mën na laa yàqal lu bari moo tax ngay dégg ba àgg ci ñoo xam ne dañuy àgg ci rayante wala nit ku rey nit yaa ngi ciy dégg boo xam ne dañ naan la xëccoo priorité rek la dañoo àgg ci rey foofu day cottital yëf ya waaye léeg ñu baare circulation bi te waa bu bu laaloon pitaalam rek benn seconde rek kii day jàll rek circulation bi rek lawu wu ñëpp dem seen yoon waaye boo moytu dañ koy xëccoo xëccoo ba ànd ne kàkk kakkaaral ñu wàcc ñun ñaar ñëpp euh, ba muy tuut ñu doon ay mag yi jëmm yu àgg ci am bijjaaw wala ñu ami sikkim waaye ñooy gàllankooroo ne noonu yëf yi te bàyyi ma yi sax ñu ngi solidarité ci àll bi bàyyi ma yi sax la la ñu woon la documentaire boo xamante ne bàyyi maa ngay xet li moroomu bàyyi maam naka moom nit mi nga xam ne nag moom la yàlla wax ne wala xadd karram naa ba ni aadama defal ko xel tàggatal ko yu bari yu dox Euh, boroomam war a dox digganteem ak moroomam waaw yu dox digganteem ak boroomam ak yu dox digganteem ak i moroomam te yooyu doon yoo xam ne bu ko jëfee jëfandikuwaay bi mu ko war a jëfandikoo ak dundam day neex ak dundam day neex ndax jàmm gënu ay waaw jàmm gënu ay te it ànd gën tàggoo jàmm gënu ay te it ànd gën tàggoo léeg ñu dund dund gu metti goo xamante ne daanaka ràbbal sa bopp sawara ci àdduna la te sa xët-xët rek moo la ko teg waaye bu ñu nangulante woon ak muñalante tuuti ci ak mooy daal di tàmbulee am jàmm di dund dundin wu neex te loolu la ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëggaloon moo taxoon mu ne la jullit ab jullitay mbokkam waxoon naa la ko moo taxoon mu waxoon la ne dangeen a war a mel ne wenn yaram xoolal googu solidarité waxoon la ne dangeen a war a mel ne ab tabax ci jàppalante ak jàppoo alxuraan ne bu leen tàqalikoo bu leen te ku ne jëm fenn boo boobaa da ngeen di déew doole waaye bu ngeen di booloo xam ne mbooloo mooy doole kon booloo ga leneen la yal nañu yàlla dolli dimbali bañ mën a sàmm suñu diggante waaye dimbali ñu bañ mën a muñ ay lor yuñ ñuy teg dimbali la ba nga néew looy lor nit ñi defe naa ñaar yooyu bu amee rek jàmm na ñooyu léeg nit juum waaye nga jëfandikoo baat bi ma wax xam ne dafa juum bokkut ak yow dangaa dof xanaa li ngay def mooy lan boo xamee ne daa juum da ngay xam ne kii dafa juum ku juum bu buñ ko xamalee ne daa juum mu nangu ne daa juum waaw bu ko defee ñuy wax baal ma di wax baal naa la waaw di wax baal ma di wax baal naa la tey nangulante bu ko defee jàmm ne ñooyu pénc mi day daal di tàmbulee jag yal nañu ko yàlla boole defal suñu bindu almis baax bi ma yëkkati jotaay bi ñu génn maa ngi doon waxtaane lu jëm ci seeti ku feebar ci laa tolloon ci àq yi nga xam ne moo dox suñu diggante ma waxoon la ne nit ki ci dunduk àdduna day am yu koy dal léeg mu nekk tawatu yaram feebar ba tëdd léeg mu doon ay xat-xat yoo xamante ne moo ko dal yooyu yëpp mën nañ koo dugal ci biir seeti gi ay xat-xat nga yëg ne sa mbokk dafa lakkale yal na gën a sore wala nga dégg ne sa mbokk xaalisam dafa réer wala dafa feebar feebaru yaram wala am na ay yàqu-yàqu ca këram maanaam bépp xat-xat ndax yàlla noonu la mooñu nit ki noonu la mooñe nit ki xat-xat yooyu dafa jaadu ci yow muy ab jullit yow mi nga xam ne yaay dëkkandoom yow mi nga xam ne yaay mbokkam boo ko yëgee nga bokk kook moom waaw dafa war boo ko yëgee nga bokk kook moom bokk gaa ngi tàmbulee ci jël sa téléphone woo ko bokk gaa ngi tàmbulee ci mën a sol saw dàll dem ca moom bokk ko ak moom mi ngi tàmbulee ci mën a làmb ci sa poos dimbali ko yooyu ay diggante la yoo xam ne lislaam bëgg na lool ñu di ko jëfandikoo waaye rawatina nag nga di ko jëfandikoo ak say mbokk lu jafe la nag léeg defal ko jàmbur moo gën a yomb defal ko mbokk ndax bi seen ma wax la ne jëfal mbokk yombut jëfar jàmbur moo gën a yomb ndax jàmbur day mel ne li nga ko defal yeyoowu ko moom dana la tagg dana la kañ dana ko wax fu ne te bakkan daa bëgg loolu te bakkan daa bëgg loolu waaye mbokk moom mën naa am mu wax ne maa ko yeyoo rek wala lim def moom c'est normal boo moytuwul sax merci du la ko ci wax ak détails yu baree bari bu dee nag ki nga xam ne dafa feebar ma tudde ko seeti ku feebar dafa bokk ci ab jullit li war ci moom mu sàmmonteeg buy seeti ku feebar yi ma tàmbali woon a lim ca jotaay ba mu xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko jàngale mu def ko ndax yéenee topp ndigalul yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye mu rafetal digganteem ak mbokkam moomu ci nam koy seetee mooy boo fa manee dem demaat fa léeg-léeg ñu ne ah diw de wax dëgg yàlla bi mu tawatee diw ñëw na fi ay yoon xam nga ne loolu rafet na waaw léeg nga xëy woote laaj ñu mu def ñaanal ko nemmeeku ko léeg nga jaar ci kër ga waaw dimbali leen ca jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel te moom bu fa nekkoon moo koy faj fi mu ne nit dana feebar tëdd ni yaram bi feebare ni xel mi feebaree ko raw yàlla xam na ko ni yaramam bi feebare mu xool gis doomam yi weer di bëgg a dee mu war leen a fayal école ba ñuy jànge wala daara ji ñu jànge mu xool gis ne facture yaa ngi nii mu war koo fay waaye feebara ko tee liggéey ba mënu koo fay mu tëdd yëg ne saaku ceebam bi daa jeex te moom feebar a tax mënta dem jëndi saakub ceeb mënta dem liggéeyi mën naa dem sax ba tawat ji wér waaye moralement feebaru xel boobu mu tëddaale mën naa tax bëreetam xaw a jafe waaye léeg-léeg itam nit tëdd ci lalu feebar ñu seet si ko seet si yu seet si yu dal xel ba nga xam ne fi mu tëdd day am péexu xol ba su faatu woon sax day faatu faatu gu noppule ca tawat jooju ndax xelam day dal du tiitati du tiit ci ñi muy bàyyi ginnaaw du tiit ci digganteem ak mbokki jullitam moo tax ñu bëgg ci jamono jooju ñu ñu taxawu ko ñu taxawu ko bokk nañ ci yi ma waxoon mooy nga ñaanal ko ku nem seeti ku feebar danga koy ñaanal moom itam mu ñaanal la da koy dénk muñ da nga koy dénk muñ waxoon naa ci détails yu baree bari waaw yoo xamante ne léeg-léeg ñu dem seete ko feebar toog fa di jëw rek toog fa di wax lu suñ yoon nekkut di ko bàkkaarloo moom dem na ba tëdd cib lal nga ñëw toog nag ne da koy wétti léegi waaye ci détail rek nga nekk yor sa téléphone bi xoolal di wax lii xoolal di wa def lii ci loolu ngay nekk déedéet boo ñëwee danga koy seet si danga koy wax ah muñal wax dëgg yàlla bu doon ak mbaax de mooy tax a bañ a feebar yow dara du la dal yow ku baax nga waaye nag yàlla fàttewu la yàlla fàttewu la ndax yàlla ku mu bëgg lay teg am nattu te daa bokk ci feebar liy jegeel jaam bi boroomam tawat da cee bokk ndax daa bokk ci liy wone ne yow yaa ngi fàttaliku sa boroom waaw kay di ko di ko def noonu boo noppee itam nga ñaanal ko waxoon naa la fi allahumma rabban naas adhabal bahta ashfi anta shaafi laa shifaa an illaa sifaa uka sifaa an laa yuxaadiru saxama waxoon naa la geneen ñaan goo xam ne abdulaah ibnu abbas radiallahu anhuma moo ko nettali ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku seeti ku feebar te ab àppam jotut nga xam ne nekkut feebar boo xam ne da caa war a faatoo nga jàngal ko ñaan gi juróom-ñaari yoon suñ boroom dana ko saafara suñ boroom dana ko saafara ca feebar booba waaw waxoon naa la ko te mooy nga wax asalullah al azim rabbal arshil azim an yashfika baadu yomb la loolu ngay wax juróom-ñaari yoon asalullah al azim rabbal arshil an yashfika nee na boo ko waxee juróom-ñaari yoon bu dul feebar bu yàlla namm ci moom eh, ak faatoom dana wér ca feebar boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan wax bu demee seeti ku feebar ne laa ba's pour buxuurun insha allah waaw mooy danga nga wér bu soobee yàlla da nga wér bu soobee yàlla mooy eh, wan ko ne ko lii de amul solo feebar buy wér la waaw li ah feebar yi de léegi sax daa gaaw a wér yow de lée da ngay wér léegi insha allah del naa ndox mu bari rek gis nga waaw koy xeet xeet yu mel noonu xeet yu mel noonu xeet yu mel noonu moo tax eh, ki nga xamante ne dafa feebar bëgg na nit ki dem seeti ko waaye bëgguñu mu yàgg fa bëgguñu mu yàgg fa dem toog rek dem toog mën naa am mu soxla boppam mën naa am mu soxla boppam ndax ku feebar léeg-léeg eh, yi yi waroon a jàppandi ci ku wér ne ñokket dem ca barab bee defi ko am na yoo xam ne dañ koy dimbali ci mu def ko te ñëpp waruñ koo fekke yow sax bul wóolu sa bopp ci fekke ko parce que bakkan ak eh, njuumte yi nga xam ne moo ci nekk mën na laa yóbbu ci sa xel gise noo xam ne waru ko woon a gise wala yu demee noonu moo tax bul fa yàgg bul fa yàgg bokk na ci itam li war yow mi nga xam ne dangaa seetsi ku feebar mooy nga fàttali ko xéewali yàlla yi mu ko defal waaw xéewali yàlla yi ah waaw lii de moom sëñ bi xam naa metti na waaye nag sant rek sant rek waaw kay daal di waxtaane mbaax mbaax yi waxtaane xéewal yi yow mi feebar itam ñu ngi lay dénk nga fàttali fàttaliku xéewali borom bi subhaanahu wa taala bañ a léeg-léeg nit tëdd ci lalu feebar tax mu découragé découragé jàpp ne àdduna tukki na yàlla waaw jàpp ne yàlla defalatu ko dara te fekk defal na la dara ba tàyyi bu boobaa fàttaliku googu ngay fàttaliku xéewalu borom bi subhaanahu wa taala da ngay gis ne dalay lay dimbali da dimbali loolu ci àq yi la bokk ñetteelu àq bi di àq bu jafe moom it mooy mm, ku dëkk ak sa mbokkum jullit su faatoo wala mu am ku faatule na nga dem ànd ca rob ba nanga dem gunge ko ca néew ba waaw foofu ci li yàlla mooñe doomu aadama la bokk doomu aadama day dund day wér day wéradi day feebar jamono ji muy wér daa am àq yooyu jëflanteek moom bi mu feebaree am lu la war ci moom bu faatoo itam am lu la war ci moom waaw ndax dund moom faatoo ciy topp wal mawtu nihaayatu kulli xayin waaw faatu mooy jeexitalu gépp dund mooy jeexitalu gépp dund waaye lislaam dafa teral nit teral ab jullit jox ko ay àq ci ak dundam waaye teral ko jamono jim faatoo teral ko jamono jim faatoo joxaat ko ay àq ci jamono jim faatoo waaw ni mu ko joxe woon ay àq bi muy dund noonu la ko joxe ay àq ci jamono ji muy faatoo mu bokk ci àq yi la war nag sa digganteeg ki nga xam ne dafa faatu dafa am yoo xam dafa jagoo ci góor am yoo xam dafa yagu dafa jagoo ci jigéen bu dee góor euh, dafa am yu jagoo ci góor lu mel ni euh, julli lu mel ne ñaan ñaanal néew bi yooyu góor ak jigéen ñoo ko bokk ki faatu dañ koo war a ñaanal waaye dangaa war boo ko mënee yow muy góor nga ànd ca denc ga loolu mooy li nga xamante ne xëy na moom la góor ñi jagoo julli ga ak ñaan ga ñëpp mën nañ koo def ñëpp mënu koo def ku faatu mu bokk ci àq yi nga ànd ak moom ca loola ndax ñaan ci lu am solo la lu am solo la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu nit ki faatoo jëfam yépp ay jeex waaye da caa boole ne ñaan moom da koy jariñ ndax ñett yam dese muy sadaxa ya def sarax boo xam ne day wéy di ko jariñ day wéy di ko jariñ waaw moo tax bu la wóoree ne boo faatoo xamoo ba xam danañ la ko defalam déet yow na nga ko defal sa bopp bi ngay dund waaw na nga góorlu ba ni nga ni nga naan damay investir am naa kër am naa nangam jënd naa ay action fenn nga góor góorgóorlu ba samp fi loo xam ne wóor na la ni tiyaaba ja dana la fekk ëllëg ci sa bàmmeel fa nga tëdd te yowmal xiyaamatil akbar da nga ko fa fekk loolu nag da caa bokk sadaxa jaariya sadaxa jaariya mooy sarax boo xam ne jeexut léegi léegi sarax bu sarax bu continuer la sarax buy jeex léegi mooy nga yëkkati dara jox ma ko léegi muy ab sarax ma lekk ko mu jeex sadaxa ya mooy. Euh, gas ab teen ci sadaxa jaariya la bokk teen boo xam ne ab dëkk ngi nii soxla am ndox euh, bëgg koo jëfandikoo nga jàppandi leen bañ am ko nga def ko ab sarax yàlla tax nga def ko ab sarax yàlla tax am na ci ay jamono yu ma ko waxtaanee woon maa ngi jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne yàlla dimbali woon na leen ba ñu taxawee ko bañu taxawee ko euh, soxna bali Mële ñoom docteur euh, Touré nañ ma baal ak ñi nga xamante ne bañoon nañ ma tudd seeni Touré noonu waaye ma junj ko noonu. nga xamante ne ñañ ko defal sax teguñu bët ñi leen ko defal ndax dañ koo def te yàlla rek tax nga xam ne bëgguñu sax ñu jay leen wala ñu ñaanal leen ba seeni jëf di yàqu ak sama mbokk mee ca sonde kaptaas dëkkandoo soxna euh, soxna soxna siise ba yàlla na ko yàlla yokk wér mhm. sadaxa jaariya nga xam ne loolu gasub teen benn la ci gasub teen benn la ci fekk lu mel ne école wala daara ju ñuy jàngalee te yàlla tax nga tabax ko baa nga def ca def ko te yàlla tax lu ca génne fekk la ca loolu la ñuy wax waqfu rek ci bunt bu gën a yaatu waaye teen benn la ci daa bokk ci gën a jàppandi te léeg saraxe ndox it bokk ci yiw yi wala xam-xam boo xamante ne nit ñi dañ koy jariñoo xam-xam bu nit ñi jariñoo mooy bind téere wala mënoo bind téere nga fekkoon téere boo xam ne bind nañ ko mu amal nit ñi njariñ nga jël ko móol ko te yàlla tax ba léegi yaa ngi tasaare xam-xam boobu ku ca jàng gindeekoo ca Euh, falilaay alhamdu wala yi dugg ci bunt boobu yépp ba ci mujj nag te taxoon maa jóg mooy doom ju baax ju lay ñaanal bu ma yaatalee baat boobu nga xam ne doom ju baax ju lay ñaanal dama naan fa duaahu yanfauhu waaw ñaanu doom googu moom day jariñ ci faatu ci kàttanu yàlla waaye ku faatu itam bu koy mbokki jullitam ñaanalee da cay jot da cay jot jullee gi nga xam ne moom lañuy ñuy jullee ku faatu yiwu rëy da caa nekk yiw wu rëy da caa nekk moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne koo xam ne dafa génn ànd akum néew génne këram ànd ak ku ñu robi hmm, ànd ca rob ba dem fekke jullee ga topp ko ba ñu suul ko nee na mel na ne ku am ñaari montagne ñaari montagne yiw montagne wu ne tol na ne eh, Uhud tol na ne Uhud moo tax li ci nekk ci tiyaaba kenn xamul nu mu toll bu ko téléphone yi yàqut bu ko suñu suñu protocole téléphone yi yàqut waaw léegi moom rob moom euh, tubaarkal la waaye moom itam mi ngi tàmbulee dem yoonam taxawu ko faatu ci boppam sax moo tàmbulee dem yoonam ndax ñu bari ci ñun ci mbokk gi duñ mën a sang ko faatu duñ ko mën a taxawu taxawaayin wu rafet wa ca war te ku toll ci sukkuraat daa am nuñ koy taxawoo ku toll ci sukkuraat daa am nuñ koy taxawoo dañ laa waxoon ne la boo nekkee ci wetam del tudd yàlla te ko wax tuddal yàlla waaye yow del tudd yàlla seetal loolu léegi ndax da ngay ne ci wetam muy sukkuraat yow ngay ojoo ngay ngay ngay ngay nekk di ojoo wala ngay régler ay natt wala ngay gëddaate wala wala ngay jëw ba pare di di di di toogaanu nit koo xamante ne mi ngi tàqalikoo ak àdduna allahu akbar nit koo xam ne mu ngi tàqalikoo ak àdduna kooku dañoo bëggoon jamono jooju eh, nga dend ak moom di tudd borom bi subhaanahu wa taala di tudd borom bi subhaanahu wa taala bu gi demee nga xamante ne gis bi da koy topp bët yi aju bët yi aju mën naa am gimin gi nga nit ñàkk solo nit ñàkk solo waaw mën am gimin gi nga tey yuutam yi di rogalaat sax mënu koo fompal boppam fi mu tëdd waaw yuutam yi di rogalaat sax mënu koo foppal boppam bët yi aju foofu nga xamante ne bëgg nañ nga mel ni ku ko sëlam wàcceel ko gis bi wàcceel ko gis bi tolloole cëram mii gaaw yi nga xam ne moo génn ci moom ci yëfi nit nga la maanaam nga suturaal ko nga suturaal ko mhm. waaw fomp ko fomp ko àndale yenn yi hmm? àndale yenn yu baree baree baree bare bare sàng ko te ànd dal wooñu ko war a jël ñu ñëw jël ko buñ ko yóbboo ba ca morgo ba moo xam dañ koo tëral di ko sang wala ya ca aju bëgg nañ foofa ka koy sang doon ku téye aw làmmiñam waaye buñ sañoon mu doon mbokkam xam nga ne loolu sax dafa am yërmande loolu sax dafa am yërmande nii rek ci xel dafa am yërmande waaw néew bu tëdd kenn ci ay jege ñaaleem waaw kenn ci ay jege ñaaleem ñi ko war a taxawu ñëw taxawu ko waaye ñun dañu ñëw daanaka duñ xam ci loolu dara dara dara dara dara léegi dara waaw maanaam ki nga jox mu lay sangal bu fekkoonte ne da ngay dund mu muy dund doyoo doyu la ci sa bopp ci yu bari waaw waaye tey nag moo fi sës moom ngay woo fay ko dem tegale say tànk ci ker ga di téléphoné que liiri message naan naan ko pareegoo nga xam ne da ngay mujj sax di ko soññi waaw da ngay mujj di ko soññi suñu dund gi lépp ay risque la léegi kenn xamut fooy mujj ak yan loxo ñoo lay taxawoo taxawaay bi nga xamante ne moo ci war waaw moo tax bu ma dellusee sax bu subaa jàmm foofu laay doore waxtaan wi ca sang gaag sang gaag jullee gaag àq yi nga xamante ne kenn ku nekk ci ñun amel na ko sa moroom bu fekkente ne dafa jiitu ji yal na yàlla boole ñu sàmm yal na yàlla defal ñu taw féexi dund waaye yal nañ dajeek moom ci yërmandeem yal nañu dimbali bañ matal àq yi dox suñ digganteeg suñu borom matal àq yi dox ci digganteeg suñ moroomi nit musal ñu ci jafe-jafe yeeg fayoonte beeg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 ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala